élevage xam nga dafa yaatu. Hmm. Euh, lépp lu ñuy sàmm ci la hmm. bokk. Hmm. Euh, ministère bi génne woon na benn communiqué du ñu xamal ni que. Euh, grippe aviaire bi. mu ngi Sénégal. et que touché na plus de cinq cent volailles ak ay oiseaux ci yenn parc yi. tey grippe bi mu ngi am doole Sénégal ci vaccination bi état du Sénégal fan la ci toll. non c'est gis nga grippe bi aussi. danaa la danaa dalal xelu nit ñi. ci lan frontière yi nga xam ne foofu la lépp war a jaar dugg ci suñu réew dañu koy surwaaye bu baax. mais dugg na. de placé man placé na pour wax ci. coronavirus dugg na fi fu mu jaar be dugg fi gis nga dama lay wax ni monde bi mel actuellement amul kenn koo xamante ne ki mun ngaa garanté ne dara du jóge feneen ñëw ci sa réew. parce que am na ay jur yuy jóge ci ci biir UEMOA dañuy circuler comme ni mu waree. ay xar dañu fi ñëwaat ay nag dégg ñooñu mun nañu fi ñëw indaale fi malaj te aussi tamit ay eh, boo xamulee ñaata jur nga nekk ñaata jur nga am nan ngay provare kii ay médicament pour faj jur gi nag yi fas yi ganaar yi dégg nga ak yeneen malo yi bu ci nekk dafa am garab yu koy koy faj te yooyu nag bu fekkee xamoo ko danga bàyyi rek mu noir nii ngay tërëri loolu nan nga koy waajale d'accord te aussi tamit war na am ay infrastructures yoo xam ni dafa jëm ci secteur élevage. yu mel ni. ay forage ay foraay fu ñuy jaayee jur gi ay forage yu jur gi di naa ne ay piste yoo xam ni jur gi di ciy jaar pour dem ci àll bi te aussi waxuma la dara même suuf si ñu yore tey mooy de deux cent mille kilomètres carrés plus de dix-sept millions sénégalais yooyu boo xamul ñaata jur ñoo fi nekk nan nga koy ridde bekken ne ku ne mun ca gis boppam man balaa